di wàccee dem ci li nga xam ne mooy toog ci comptoir bi di jàng dem ci li nga xam ne mooy dem di di tuuti bagage di ñëw bopp yaa ko yor ku amul kóllëre ak seen waajur ak ay mbokkam defe naa ne bu ñu la joxee Sénégal doo am kóllëre ak Sénégal waaw léegi nag boo xoolee tey jii président Serigne loolu sax bokk na ci loolu dara mais nit da ngay wax nga xam ne loolu gëm te li ma gëm xoolaat suñu bopp ndax ñeent fukki at mu tabax lu toll ne Touba Sandaga defe naa ne kon kooku jaratul ñuy naataange li nga xam ne mooy jono jaratul ñuy naataange li nga xam ne mooy pas-pasam jaratul ñuy naataange li nga xam ne mooy fulaan ci li nga xam ne yoon bi ko diggante wax oto yi def ay usine de montage beneen ñu ngi agroalimentaire ñëpp gis ko ñu li nga ne mooy baadoole ak yeneen structure nag loolu yëpp ñu pare ci loolu muy secteur privé bi mu wëngal ko ne man kat daf koy faral di wax bu ma yàlla mayee li ma may ma xel bi ma may su ma ko bokk la askan dafa mel ne day doon zéro bokkal askan wi boobu moo ko indi bu jël li nga xam ne nag secteur privé bi mu yore woon ne xaaral ma jël ko teg ko au service des entrepreneurs du secteur privé sénégalais ñëwaat munoo ma jël bu Dakar ndax bu ko jëloon du ko xëccoo kenn bu ko laajoon du ko xëccoo kenn mu xool foofu juddoo muy Kaolack mu ñëw jël li nga xam ne mooy sa xam-xam nangu ngay yokkoo sa xarañte nangu ngay yokkoo ñëwoon ñu jël la def le président union nationale des chambres de commerce Serigne maison économique de la femme yooyu dañ cay def lu mel ne transformation agroalimentaire parce que ñëpp xam nañ ne Kaolack toolum dafa posé lu bëri ci wàllum agriculture ñu ciy def lu wàllu saponification ak métier yu bëri yoo xam ne euh, xëy na du xaj fii sax pour ñu koy mën a développé léegi nag mu ne maa ci yem bu ma defee jigéen ñi ba pare ci budget ren bii mu dugal li nga xam ne mooy siège coopérative d'initiative pour la jeunesse et l'entrepreneuriat pour mën a dañu ko war a fekk fekk nekk ci biir euh, dugg ci biir daara yi ndax jeunes yoo xam ne tey jii fekk fekk la moo tax ñu naan ndax xale yi dañuy xaar xale yi xaar moom la ndax dugg ci biir amoo matériel boo xam ne tey jii mënoo fee amoo matériel booy sori nga dugg ci biir ne désespoir jeunesse rek moo ko mën a indi looloo tax mu teg projet boobu mel ni si am na aussi yeneen projet yu mel ni artisanat mooy sa bopp parce que secteur artisanal bi dafa nekk secteur boo xam ne li muy jël ci part active bi ëpp na soixante et quelques pour cent donc financé na leen encadré na leen ñoo tamit pour mun a dem kaw nag tamit ñëpp xam nañ ne Jakarta ni mu fa mel dafa ëpp mi ngi ñëw fépp ci Sénégal mais kaw la ko jógee Jakarta yi am nañ plus de vingt mille Jakarta ñu tegal leen déjà programme de encadrement et de modernisation des départements am nañu beneen programme boo xam ne ñu ngi ko teg ak transporteurs yi pour renouveler parc automobile bi